ba pare de tenir des réunions di def échange à distance ah euh, je pense que loolu bu fekkente ni dafa am ay écart de parole wala yu demee noonu mën na andi coow. waaw li xew si bërëb bi lu yomb la ñëpp xam na ne jamono juñ toll nii euh, ñu ngi traversé euh, pandémie Covid 19. donc situation la bi nga xamante ne yaakaar naa ñu ñëpp gis nañ réew ni muy entreprise yu bari actuellement tëj nañu ñu ngi seen liggéey wàññeeku ni yóbbu euh, presque en chômage technique ñun nag alhamdulilah rabil alamin toll situation boobu depuis bi euh, Covid bi amee ba léegi travailleurs yi ñoo ngi leen di maintenir nañ salaire Outils de production baa ngi dox ñi nga xamante tamit pour ay mesures de restriction pour éviter la forte concentration Nous ñëpp boo xoolee ñi nga xam dañ en télétravail je veux dire bàyyi na leen seen mais ñoo leen di fay salaire plein kon yaakaar naa ni problème amul léegi nag quant à problème bi problème boobu war na mun a ñàkk parce que délégué tamit da ngay tegu si ay charte yi nga xamante ne yooyu la la euh, yoon tënk délégué rôle am mooy euh, maanaam di yore kaddu euh, personnel bi kaddu personnel bi nag boo koy yor da nga ko war a teg ci yoon assemblée générale yaa ngi fii boo xamante ne danga war a jaar si direction mu autoriser ko donc su ma gisee man ay samay camarades délégués xëy xëy benn bés rek créer groupe whatsapp def si logo Grand Moulin di utiliser image Grand Moulin di bugg euh, andi euh, ay benn climat délétère pour wax ni kër gi doxul ak kër gi nangam nangam mais kër gi dara nekku fa kër gaa ngi dox les gens travaillent. sama position moi, di en tant que responsable faire ba ñu trouver solution à l'amiable fexe ba tout se passe bien euh, tout revient à à la normale euh, et que gagne bañ a am. dàq bi de demande de licenciement la boo xamante ni. Euh, direction bi adressé nako inspection du travail direction bi adressé à l'inspection du travail pour demander l'autorisation des délégués euh, qui qui sont inculpés. non intersyndicale du parce que nous ne sommes pas des centrales syndicales nous sommes deux entités. Euh, deux ñaari syndicats qui et démocratique des travailleurs des industries alimentaires mu di syndicat bi nga xamante ne dafa am am démocratie am affilié à l'UNSAS bi ci des syndicat syndicat bi nga xamante dafa affilié ci synthèse ñaari syndicats yooyu ñoo Femme. am ça c'est des syndicats de base syndicat de base ñu mën a def fusionner, à fusionné ak keneen mais syndicat de base du def intersyndical et puis même bu ñu ko doon def sax waxtaan lay doon ba jubboo te mu doon waxtaan boo xamante ni doon entre les responsables des syndicats mais du ay délégué ay délégué du personnel mënuñoo juk rek dal dañuy dañuy dañuy def intersyndical là c'est c'est je l'ai je toujours dit que bu len dugg ci lolu parce que mënul nek